aujourd'hui j'ai fait les sorties pour euh, aller sur le terrain pour regarder quelques ba xamaguma sax euh, boy bi fan la ci ci euh, les parcelles unité 1 ba cinquante cinq mais je vais faire les descentes sur le terrain pour regarder le gens pour demander un quelque nit koo xamante ni dafa sonal baana baana yi sonal jaaykat yi wuykat yi musiciens yi les théâtre kat waaye dinaa xam tey fan la nekkee si dëkk bi sabu nit koo xamante ni da ngay nekk si dëkk bi jaakal xale yii ku nekk def nañ les réclamations sur les pas takarnas wàccal si téere bi nga xoolal nu waa ji ñun fi mu toll nii jaakal nañu kon lépp dina leer say salaamaaleykum chaque jour qu'on dort qu'on se réveille y a de nouveaux dossiers lépp dina leer say tey lay def euh, tey lay def takarnas salaamaaleykum patron ça va lay def takarnas xaaral rek xaaral rek aujourd'hui c'est pas takarnas qui fait Eh, sawaay booy def ay mangé mburu affaire da ngay dem ba kër gi nga toog nga lekk mburu yi kenn du si mbedd bi di def les lekk mbur aujourd'hui c'est pas Takarnas l'homme de tous les temps qui fait les quitter à la 221 les chaînes de l'indicatif je vais faire les sur le terrain pour regarder quelqu'un qui les fatigues avec les gars eh, kaw maa ngi def les sorties de ah, dafa def les dérangements ah d'accord merci beaucoup merci voilà c'est pas Takarnas l'homme de tous les temps l'homme qui voilà merci beaucoup Allez. C'est le... Ah, C'est bon, c'est bon. Kii lay def nii. lan nekk nii. soxna la. Eh, dafa nanke rek xam naa damay dem kay doo def nanke rek lan ngay nekk nii PPP nii comme ça. waaw waaw waaw je doo def nanke kaw. ngay nekkee di pimpem nii allez ñëwal ñëwal ñëwal dama c'est bon non jël nii ko day c'est bon thank you very much star nga man xam naa la star nga allez demal seen yi dafa waroon daw si BRT bi xam ngeen ni war leen daw si tëri voilà defee ne dina xam global waajooju moom xam kan lay yabay nekk dëkk bi urle dëkk bi xale yi mënatuñu seen fiti dalatuñu koo wax mu ne borom place bi koo wax mu ne waajur yi def les def les baana baana voilà c'est pas Takarnas l'homme de tous les temps l'homme qui sait tout faire. yaa ngi may defal bagage waat yaa ngi dogal wul de ça va. moom ku may dafa ku may def de doo ñëw ñu wéccoo moto maa ma jox la caabi nga jox ma bii rek wéccoo moto parce que xam naa moto star nga yor yow am nga rajo man aw ma rajo wala nga jox ma rajo. nagaw naaj. voilà salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Ndiaye sa waay neen dafay. achat yi eh, benn waay bi ñu global textile lay laaj. xam naa jakarta man yi xam naa jakarta man yi boole boole la jakarta man yi xam naa xamuñu loolu. booy saba. Eh, Mermoz laa bëgg a dem. ah eh, Mermoz laa bëgg dem nga def nii xam naa mu ngi fi tool dama ko fekk da nga xam ni bu tool nga yor nii moo tax nga may jéem a jaay ma xam naa salaamaaleykum salaamaaleykum li jaay ça va eh, dafa am benn waay bu may laajte eh, bu ñuy wax textile te muy jaay ay tissu ay affaire yi global textile lay laaj achat global global xamu leen global textile te muy jaay ay tissu affaire yooyu noonu ah waaw boo defee nii waaw waay waay waay voilà merci beaucoup merci sama nijaay ma koy laaj moom muy daw nii xaw ma lan ngay daw lan lan ngay daw nii lan ngay def nii di daw salaamaaleykum léegi war nañ ma global textile fi mu nekk yow woppu dum tan merci ma ko say wetu caabi yaa ngi soo dawee nga bàyyi su waa dañuy waa ji bi lan man di def ay ay affaire daal di bari Dakar yooyu maa kër nekkul yéen ngi dogal quoi yéen ngi dogal les fast food sapeur sapeur sapeur c'est fait les les descentements les fii dax yi day suuf salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum ah yéen samay copain cek cek man yéen xanaa yéen xanaa tey dëkk bi dafa neexul ah neexul kay war na kañ gis kay <laughs> xam nga gis nga jaaykat boo xëyee nga gis kanam bi soo xamee dëkk bi bu doxee da ngay xam ne dëkk bi dogul bu dëkk bi dogul da ngay xam ne dëkk bi dogul ay góor xool si kanam yi dama côté yi dana xam ne dëkk bi neexul <laughs> xanaa soo ko commencé ko joxe si <laughs> ça va kii euh, Assane waaw euh, Global ah hey tey lay dëkk bi nekk tey lay saf korom tey lay saf kaani tey lay saf laaj tey lay def dëkk bi def takarnaas takar G L O B A L ah fii la ñuy wax global textile o xam seen taxawal xaar ma yow taxawal rek ngeen xaar ma ñëw taxawal rek tey laay xam yow Assane Fall yow dëkk bi yaaka moom kono yow Ndakaar dañoo xotti titre foncier Ndakaar tekk sa loxo kon yow Assane Fall yow lan da kam seet voilà léegi kon ah ah daa bàyyi naa la gerte ma bi je fais les li ah caabi xam naa sama bàyyi caabi daf lay def sono laay sonal rek voilà def naa def naa def naa parcelle eh, voilà def naa maris dem naa caaroy fu nekk dem naa fu wër borom place bi kon nekk mi ngi ma eh, salaamaaleykum eh soo kii may jox ma kaas ma naan yow sama copain yaa ngi def takarnaas quoi boy bi nekk fii laay xool boy bi moom moo seetaan leen maag moom rek tey amul salaamaaleykum salaamaaleykum yéen xanaa ku leen nuyu ngeen mun ko fay xale yi yéen xale yi ñax nu ñun xale yéen xanaa xanaa yéen seen wi ngeen dëkk xanaa booy seen wi ngeen booy doom may café bi ma naan rafetaa kam café ay café ngay naan xoolal kii di yow waaye hey lan ngay nëbbatu andoog ah, mi seet ah min woobata andoog mi seet yow ku baax nga bokk bu si gàkk yi merci beaucoup ça va ni ngeen def yéen ngi noos ay booy bi borom booy bi nekk si photo bi mi ngi si place bi anam anam nekk ah kanam gi min naa ko de xam oh, tam taxawal rek taxawal rek taxawal rek yow toogal toogal rek ah! yow lan ngay lan ngay yow mii laa yow nekk xamoo place bi gisuloo gara yaay Assane Fall yow ah yaay ah Assane Fall goog Dakar ça va Baye Assane yaay global textile yow yaa nekk yow li ñuy wax Assane Fall global textile grand ça eh, comment tu eh, t'appelles nan ngay Ah, waaw ba pare eh, ay Moustapha ah, wapputum kaltakkoo yow nga wax ma yaay Assane Fall Global Textile ngaan maayi Moustapha ana kan ma def Global <laughs> un deux trois quatre ah tey def na takar naas takar ndaanaan kullu ndaanaan tey lay dëkk bi def takar naas ah yow ndeke kon gars yi nee nañ tur dina yóbbu borom foo xamante ni yeggu fa de xoolal xoolal waa ji ne ni mu toll ak fi may dégg Global bi woo na ma téléphone mu ma takar naas defal les descentes à la terre tu fais parcelle pour regarder les textiles les hey yow xaaral rek okam seede meer ah. voilà takar de tous les temps l'homme qui sait tout faire c'est pas takar naas hande 221 la chaîne nga ni faral di wax naa sàcc bu doo jartu yàkki nelaw xoolal fi ma déparé ba l'arrivée à la parcelle di xool boy bi dafa foogoon ne dana ma raw moom xamoon na ni du raw. saa ci raw yaram gi miin naa ko de. waaye mais dama xamul man global tekiti laa xamul boy bi fan la toj ci dëkk bi ba tax l'internet yi euh, musiciens yi rappeurs yi xale yi ku jóg ne global textile man am na jaaykat yoo xam ne sax dañ may woo di ma wax demal seeti global textile na yem ci ay clients suñuy clients dafay def les récupération di leen jaay ay tissus man dama xamul yow fi ngay jëndee ñoom dañu jëndee wul foofu man nga xamul nu mu demee noonu global textile xam la bëgg a xam fi nga toj laa bëgg a xam ak yow lan mooy nekk sa problème ak les sénégalais les artistes comédiennes comédiennes ak musiciens yi loolu laa bëgg a xam gaaw tuuti ma régler sa situation. <laughs> tey tey dama la liggéey liggéey liggéey lu baax rek ah liggéey lu baax rek parce que ñun tout le temps dañuy focus si client yi ah xool bëgg-bëgg client yi di sonn bu jaree ñu dem Asie ñu dem bu demee ñu dem Japon bu Inde bàyyiwuñ Dubaï dañu dem wutali client yi seen bëgg ba ñu andi leen ah. te li ngay gis fii waaw li ngay gis fii doo gis tuuti mono da geref war dañuy ah, xam nga hmm. ni ñoom si te eh, dañuy def théâtre ñoom lan moo leen boole ensemble global textile man loolu hmm, la ma dem seeti global fii fii fii boo soxla si tis da ngay tàkk ba faw <laughs> si su may dem damay sol kat. waaw ah, boo soo si lay boole ma sol ko. boo boo boo boo da ngay tàgg ñëpp ah, takar na tey lay def takar naa voilà. musiciens yi musiciens yi kon yow yemoon na si ñoom kii si yi. non waaw musiciens yi bëri ñu bëri nañu tourné clip. boo xoolee fekk ngeen fi jaw jóob sànq dañuy tourné clip ñu leen di habillé lu mel ni Ndiogou. Waly Sidi ñun ñëpp. voilà tegal sa loxo foofu tegal sa loxo foofu. <laughs> boobu tegal sa loxo. lan mooy nekk sa problème wala sa secret ak Waly Seck sabu musicien yi li ñuy def quatre cent sabu am na musique boo xamante ne sax naa mu nga lay wëy yow mm-hmm. lan mooy lan mooy leen def les collaborations yaa ngi Wally doon suñ frère rek ñu bokk même génération ah bokk ay jeunes yoo xam ne waaw ah, dañuy xaajandoo di dóorandóor ah. bokk bëgg-bëgg si réew mi waaw doon ay jeunes yoo ay référence xam naa loolu moo loolu tax suñu borom boole ñu waaw xam naa yow dafa mel ni kon su defee les analysations xam naa amuloo sens interdit ci musiciens yi <laughs> balancement yi te artistes yi comme yow amoo sens interdit sax amoo sens interdit gars yëpp laa boole uuf ñëpp samay xarit lañ waaw voilà kon à partir d'aujourd'hui par Takarnas l'homme de tous les temps l'homme qui sait tout faire moom ni dafay sol ah, léegi li mu bëgg a xam tabaski bi ñëw na hmm. xale yi jigéen ñi bi may ñëw rek am na xale yu wax ne laajal golobaar est-ce que arrivé su tabaski bi ñëw na

pour en uh-huh. time la daa am ay commande en time jàmbur la waaw ay ah, time comme xale jigéen yi nga xam dañ la war a takk boo soxla ah. nduróole mbasin bu doon mille mètres dañ la ko jaay mètre francs ah, xanaa xanaa ñu ngi préparation tabax bi jaay eh, daw si leen ngeen ñëw mètre mille francs global textile neen ngeen ñëw gol mètre mbasin laa leen wax de am na ay couleur ku soxla ah couleur am na couleur dina ñëw bu soob yàlla mètre mille francs mètre mille francs léegi appareil yi yan nekk si jas yoo xamante ni tey. am na til tisi xew yi ay tisi la. ah yii nii waaw yii ay la. Ah, am na fi ay brodé góor. Uh-huh. ku ne gis na brodé bi mu ngi lëmbe mu ngi lëmbe àdduna bi. <laughs> Sidi Diop sol ko. yii fii la bokk si global. textile dañuy def Dakar sol ko mu ngi bokk ci global textile gis na. reer reer reer dama góor la Kara les deux cent vingt et un jëlal leen ma produit bii ngeen xool jëlal leen ma mu leer nañ <laughs> global textile lii rek moo ko sañ ay brocart la ah brocart góor la ay brocart la ay brocart ku ne xam ne brocart dafa xew lii ay brocart la ah lii lii ay tissu xew la ay tissu xew pour pelaa ñii xew ah yii nii la fi nekk ah, léegi xam naa tey bu ñu koy ñëw dina nekk problème day yéeg. non du am problème ci su global day nooy neex. ah waaw waaw loolu moom leer na. ay ay ay ci su góor la. ah yii nii. ay ay filafil ah. ah filafil. waaw filafil yi mooy filafil. yi ah. mooy filafil ay tissu góor yëpp. xanaa yéen ñuy ñëwee super sang yi xale yu ah, góor yi. super sang filafil la moo nekk ah. nii. mooy échantillon moo nekk nii. yii noonu loolu mooy différence am yéen yéen nekk ci kaw. am na ay façon différence yaa xool boo bëgg rek. yaay borode coton la. borode coton. yi borode coton la. ay ay brodé ay brodé coton la moom moo nekk nii. ah mu nekk ci suuf waaw moom moo nekk brodé coton lii moo nekkaat lii ay val brodé la. Ah, waaw val val brodé bi moo nekk. te bii lan mooy nekk tissu bi ban tissu. la. ah bii wax la. ah wax ah, bi maa ngi soog a wax wax bi. wax wax la. ah wax yi ah la moo nekk. ne bii jasinaire la de. du vax rek seen nii lay mel. ça va. ah bii nekkul jasinaire. non vax la. ah wax si biir rafet na. waaw Abidjan bi la wax si Abidjan. yaay booy xam na yaay booy xam na. <laughs> yaay booy nee na wax si ay Abidjan. wax si Abidjan la. yaay ah. wax si wax si Abidjan la. wax si wax si Abidjan la. wax si yii. bii mooy nekk lan. rek wuti wax si kii la wuding la. bii nekk lan lii mooy mooy plissé. ah publicité. li ma publicité li mooy publicité bi ngay dégg moom la xale jigéen ñi ñëw zip. Ah, mooy publicité muy zip yooyu xale yu jigéen xale yu jigéen dañuy gis ñu ñëw façon zip yoo xamante ni boo ko xoolee sa kol bi day sedd. moom la moom moom la am na. kon yow yaa yàq xale yu jigéen ah xale yu jigéen yi yàq yëpp Dakar da nga yàlla yàq xam naa loolu ah, ah yaa ñu ngi nii man fii rek laa ko gis fii rek laa gisee loolu. ah loolu am na ah lan loo xamante ni. ah yii rafet na de lii ay voile coton la. ah voile coton ay voile la lii ay voile fleuret. lii waax la pour tàngoor bi lii ay voile la yëpp. lii nga nii lan waax. ah lii mooy waax pour tàngoor bi ah, sa mbokk pëli xam nañ ko waa Mourtani. ah Mourt ah d' accord kon moom Mourtani lay jógee. ay waax la. ah macha allah en tout cas. lenn moom xamal naa la léegi. Hmm. kay Assane kay Assane kay. waaye léegi roko ba fële. waaw léegi lee mooy til xew. til perlage la. ah til perlage. waaw lii til perlage la am na lii ay velours la ay til perlage. ah velours waaw ay ay am nañ ci bagage yoo xam ne yu yoo xam ne ñu ngi ci biir kër gi. waaw man bi léegi weer bi noonu weer bi yi nekk ci biir weer bi. yii ay kii la ay yii ay kii ay ay til sable la ay til sable la. Ah, waaw léegi. léegi si àll ah, ah, ba doo may 1000 francs yi. xoolal kii soo ma ko mayee garaawul. maa boo ma ko mayee garaawul may ma fa rek. dama ma dagul boom jaay na ma ah. <laughs> ah. <laughs> la yow yow yow naa bu ma la. xamoon yow ah? de. ah kii sama coppe may na ma ko. yaa boy yaa boy kontaan naa si yow xam nga sama ñëwaat yow sama dama dégg nga am loo ma wax bi. waaw nga xam ne yow ku xam ci waaw ndax man damay koy gis ci kii bi rek ci télé bi. Ah, macha allah ah tissu yu rafet lay jaay te garanti. léegi yow lan loo xamante ni. wallaahi baax. baax lool nag. garanti. di jaay lu baax lu yomb. Ah, ñu koy ñaanal yàlla rek. amiin waay yal na yàlla barkeel liggéey bi rek yal na yàlla indi xewal gi. itam bu ànd ak wér loolu rek lañ koy ñaanal ak yéen ñi fi nekk loolu daal lañ koy ñaanal dama gis ñu woon benn bassin léegi mu ne ma mètre mille francs ma ne est-ce que lii baax yow kii lu ne lay jaay macha allah lu ne ndeysaan lu ne la am te yomb te rafet ku bëgg lu baax ñëwal est-ce que fii daal la ndeysaan <laughs> mën naa xam tur bi man maa ngi tudd Wali. Wali waaw sama maam Wali la tudd. Wali Mbaj <laughs> Wali Mbaj. Wali Mbaj dëkk Parcelles Interdites. <laughs> la la la la la sama copain ngi nii. may def takar ngay def takar ba yegg si moom eh, sama copain yow soo paree nga coupé sa téléphone bi bu ma fekkee foofu ngay def ay allo de ma la fekkee foofu ngay def allo de wax naa la nekk lan sama copain. jërëjëf. yaa naa ci loolu. sant. dama la gis sànq ba léegi ngay def les va et vient di dugg di def rentrée sortie. waaw fi nga nekk ci place. fii laa nekk ci place si moom loo eh, moom nag wax dëgg maanaam suñuy grand la. suñuy xarit la suñuy mag la suñuy daanaka daal papa la wax dëgg maanaam moom fu mu ñu jëlee ak fu mu ñu indi kenn mënu ko nekk di netti ni daal wax dëgg yàlla baax na trop man na wuuf nit euh, bëri na yërmande liggéey bi moom maanaam liggéey moom bu bu desu luuru liggéey bi boo ci bëgg a dugal leneen kii rek man ngeen réeroo waaw waaw waaw wax dëgg client yi ñu ngi ñëw ñu ngi sant bu baax ñi jaay wax dëgg ñu ki la man Mouhamed laa tudd. Mouhamed Golo Ba ah Mouhamed yow. Mouhamed yow sama sama sama jawriñ nga. ten tarant eh, ah, boo defee régulation rek tey ma mbokk la booy reculer ma lay mbokk yow xamal nga dinañu daje ma ak yow <laughs> yow sama xarit nga yow yàlla moo ñu boole sama xarit ça va. ça va bien Nabou. Nabou eh sa tur bi nekk na sama jabar Nabou lu tudd. Hmm. maa ngi nekk na. noonu la. Eh, Nabou lan moo mën a wax loo xamante ni xam nga ko ci moom parce que xam nga boo nekkee di liggéey ak moom dina am qualité yoo xamante ni nga xam sama dégg naa ko bon la de. déedéet ay bu leen faral de. non non da question faral sax. Assane Fall moom nit ku baax la. vraiment bi ko wax. waaw. ñoo ni Assane moo taxoon ma ñëw ko seet. déedéet. Ah. Mm-hmm. xam nga réseau bi moom des fois moom dañu ñi looloo mm-hmm. tax. te Assane Fall moom macha allah moom nit ku baax la bëgg na ñëpp te jàppale na ñëpp tamit. képp ku ñëw fi moom. di nga bëgg moom. vraiment moom nit ku baax la. kon yéen dafa mel ni seen kër gi artistes yi may gis ñu dugg si kër gi yéen yéenay recevoir artistes musiciens yi artistes mbalax maan yi théâtre kat yi bu nga ko maanee sax da ngeen di leen def lay recevoir. waaw lépp si Assane rek. Ah, lépp si moom la. Mhm. léegi nag xam moom def na ma les présenter yow yow yéen seen yëre yi mbaa client yi daal ñu ngi ñëw ak yi waaw ñu kay. waaw yaa ngi def takarnaas. naw voilà. sama champ kii mooy nekk sama champion man kii mooy sama xarit ci place bi benn xarit laa fi am moo nekk nii sama copain. waaw dootul. Mouhamadou Moustapha. Mouhamadou Moustapha. Mouhamadou Moustapha. sa tur bi nekk nii Mouhamadou Moustapha. Mhm. booy bi nekk fii lan nga mën a wax si moom mooy seen waa ji bii rek ki nga xamante ni moom ma indi fii tey. seen garabal baax lañ xam si moom. Eh. ak akuk dal. Eh. ak teey ah. nekk nit ko amul taalibe na boole si. bëgg nit ñi loolu nag. ndeysaan. ndax yar gi rek te nit moom xooluñu lu ci moom yar gi. Mm. ak oyof gi ak taalibe gi. tey jaay lu baax na bool si nga xam ne ñëpp ci moom la ñu daw ñëw ndax li muy jaay moo baax. man li ma bi dañ ma wax damay dégg ñu ne Assane booy boobu booy bi baaxul dafa jàpp dafa jàpp kii euh, ministère ñëpp du leen indi ñooñu noonu léegi lan moo tax léegi kon li ñuy wax si réseaux sociaux man bi ma ñëwee fii gisuma loolu. te ñiy wax ñëpp def seede seede bi benn la. ah loolu loolu ñu ne loolu gis nañu ko ci moom. waaw ah, ah, gis nañu ko ci moom de. gis nañu ko ci moom baax na xam nañ ne moom ànd ak daal. li muy jaay baax na artistes yëpp moo leen solal. ñu bari bari moo leen solal. waaw ñu bari moo leen solal daal moom daal macha allah. yow yaa may solal Assane du ma solal yaa may solal maam yow maam lan ngay duggee si place bi fii Assane place Assane fii ku dugg fii da ngay xam ne dugg nga ci place yaa ngi def naas de yow dag maa nekk. maam kaay ñu jàkkaarloo dafa am lu ma bëgg a laaj kaay ñu jàkkaarloo ngay takar do do non man dama ko gisee ma xam ne xaritu xaritu Global Textile la maam ça va. ça va bien si <laughs> jàmm bu baax. <laughs> Eh, bi yaa ngi lekk sa xaalis. waaw sant ah, yàlla <laughs> sant yàlla place bi xam borom naa ko bu baax. xam nga ko bu baax. ma sol fii laa ko jëndee. kon maa ngi doog a gëm ni réseaux sociaux bi dañuy yàq der kon li ñuy wax si Assane Fall du bokk ñu dëgg saabu nee nañu Assane baaxul Assane lu bon si jigéen yi di sol moo koy jaay xale yi xorteeku leen yi ñuy sol Assane moo koy jaay mais li nga ma wax nii wax bi yëpp benn la de. incident am ku may dajal fii parce que hôtesse la war a jënd. maa leen di jëndal yére te man fii rek laay jëndee chaque jour dañ ma laaj fan ngay jëndee yére léegi moom laa woo pour dajeeg moom fii pour mu jënd ay hôtesse. léegi loolu mën seedal ñaari baat yoo xamante ni rek leer na la lii ay qualité la yoo xamante ni nit ku baax loolu lay def ci asal waaw ñoom ñoom ay qualité yu baax lañu jaay te vraiment soo ñëwee dañ lay dalal. Ah, dañ lay dalal yaatu nañ te noo ko bëggee ñu jaay la. ndeysaan waaw. gars yi ne la client ay roi tagar yaa ngi tagar naa eh kaay xaaral xaaral xaaral sama copain kaay kaay kaay kaay kaay sama copain kaay ngi nii. bàyyi naa ñëpp man kii mooy nekk sama copain. tur bi nag. Seydou Diallo. Cellou Diallo ah man am na sama benn frère bu nekk Cellou mais kooku bandi la de yow ana mbaa bokkoo nekkoo bandi. non non bokkuñ bokkuñ bokkuñ. naka naka naka place bi jaay bi rentrée bi sortie bi ak client yi. oui alhamdulilah affaire yi ñu ngi dox ndànk-ndànk de ñu ngi si koom ndànk-ndànk vraiment waaw. léegi lan nga ma mën wax si Assane Fall nga xamante ni yéen a ngi liggéeyandoo ak moom ci ay qualité nit yi qualité bu baax si doomu aadama loo xamante ni boo ko gisee si nit da nga koy naw. non moom vraiment tey turam moom mu moom mu ngi fépp muy YouTube Instagram amul fooy dugg site yi te doo fekk Assane Fall Assane Fall te ni ngay déggee te soo ñëwee fi noonu nga koy gisee vraiment yaatu na xam nga yemale na ñëpp fii ku nekk fi dajee mhm. Carrefour la ku nekk fi dajee mhm. vraiment ñu ñuy liggéey ak moom xam nañ ko vraiment se li mu wax rafet na si Assane Fall Global Textile Assane Fall léegi nag toppal leen ma ma dem gis asan Fall mi Assane Fall Assane Fall Assane Fall xool fi mu toog xoolal xoolal <laughs> la la la la la c'est que moom boo gisee mu toog da nga toog xam nga boo toogee man damay toog ah voilà Assane euh, xam nga gars yi dañuy wax naan dañuy wax bu nit ki baaxee euh, bu diw baaxee dañuy wax ndax ay mbokkam ñoo ko wax tey bu ñuy wax say mbokk yu mbokk yi lay seedeel tey mooy ñi nga xamante ne ñoom ngay liggéeyandool nekkandoog ñoom ci place bi kon man gis naa fi ay clients yoo xamante ni ñëw nañ fi fekkante wuñ fi sax seede nañu loo xamante ni réseaux sociaux bi li ñuy wax amul mais tey def naa chapeau bi simmi naa chapeau bi ma tekk ci place bi. Assane Fall say clients yi nga xamante ni ñu ngi ñëw chaque jour ñi nga xamante ni ñoo ngi lay béggee nekk ci internet bi di seetaan Assane Fall yaakamte ñëw ci place bi ak ñi nga xamante ne bu ñu solu tisi Assane Fall day mel ne solu du tisi ah lan nga leen di wax tey jii monde entier réew mi bitim réew fu xaritu Assane Fall nekk ci àdduna bi rek waaw ah, ba xaar gën a dolli sant yàlla parce demee ba xam ne ah, ku xam ne diggante fi global nekk xat na mhm. te it naqar naa ñëw Euh, client yi du jugee fu sori pour war a mun a ñëw. kon hmm. lépp daa basé wu si suñu fekki suñu liggéey rek. Hmm. parce que nekk nañ ay ndaw yoo xam ne xaar Moussa bul dagg. Hmm. déroulé ba mu jeex. lépp si liggéey bi la bokk. <laughs> nekk nañ ay ndaw yoo xam ne gëm nañ liggéey. jàpp suñu njàmbur ah, tout le temps ñu ngi focus si liggéey amuñ samedi amuñ dimanche amuñ guddi amuñ bëccëg. parce que loolu la suñu waajur yaree waaw eh, ku xam ku xam suñu waajur xam ne hmm. carrément ci liggéey la ñu mën tàggat hmm. ci bañ a yàq bañ a foo bañ ñëw dégg si loo xam dañu koy xeebee hmm. moo looloo bokk na tamit ñu jox cër clients yi parce que lu ñu am rek clients yi la Mhm. dañuy daw wuti bagage ñëw sampol liggéey góorgóorlu lees ñu bàyyi ak si loxo suñu yàlla si suñu borom ndeysaan euh, tey du ma wax ne présenter place bi mais kono da ngay rappelé waat place bi parce que am na ci ñoo xamante ni tey euh, bëgg nañu xam ak Assane Fall fu mu nekk rappelé leen place bi joxewaat numéro bi gën a fesal ñu xam ne case bi am na ñoo xam ne sax xam nañu place bi fu ñu nekk mais gars yi nee yokk si ñambaas yokk ko seer day gën a tax seer bi gën a rafet gën a baax rek global textile ku ne xam ne ne chaque événement mhm. dañuy def ndimbal njaboot man chaque jour damay xool ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. Mhm. te dañuy luñ bëgg dañuy am fi force. ndeysaan. bon ñu tàmbalee lu mel ne mbasin mettre mille francs mettre deux mille mettre trois mille mettre cinq mille ba si jasinière ah, bàyyiwuñ ko lu tàmbalee bord de coton. mettre mhm. deux mille mettre mille francs mettre mille cinq ba si cinq mille francs bàyyiwuñ ko voile yaa ngi si biir. tissu góor yaa ngi fi brocart góor brocart jigéen lépp ñu wàcceel ko client pour lépp topp seen bëgg-bëgg lii mu ngi ci biir global textile. mu nekk place boo xam place ñëpp la. Mhm. parce que globalité si ku ne xam na ne da ngay gis ñoo xam ne say clients ñoo lay gën a jàppale si jaay bi comme yow sa jëmm. kon amul mhm. seen fay. di remercier suñu clients yëpp di leen mhm. jaajëfal di wan ne ren dañoo mise à jour place bi. defaraat enseigne bu bees. defaraat place changer bagage pour rek ñu ñëw fekk liñ bëgg ci biir kër bi te incha allah dinañ ko fekk si. ndeysaan dama doon wax Assane Fall tàggatoo tàggatoo bi di nga tàggatoo de. <laughs> waaw di di gën a dolli sant yàlla di gën a dolli sant yàlla di gën a julli si yonent bi. di gërëm suñu waajur. rawatina sama waajur bu góor Cheikh Mamadou Fall Mouri. mu nekk papa joo xam ne na papa. Mhm. doon papa joo xam ne référence joo xam ne su ma judduwaatoon dama koy wëri. Mhm. kon amuñu fayam di ko ñaan suñu borom lépp moom la. Mhm. ndax fii moom moo fi teg. moo fi teg ah terte moo fi ne lépp na la fi fekk. mun lépp fekk na ma fi. Mhm. parce que lépp lu ma bëgg ñeew ma sama benn morom kon lépp mhm. moom la dañ koy sant di ko gërëm mhm. waaw. ndeysaan euh, xarit yeeg soppe yeeg mbokk internet yi l'homme de tous les temps l'homme qui sait tout faire c'est pas Takarnass leen nii lay demee rek kenn ku nekk pas Takarnass dina def les déplacements fekk la sa place kon tey ñu ngi déplacé woon ñëw parcelle seeti Assane Fall Global Textile ñëw Cheikh ak moom waxtaan waaye nee naa leen su ma demee bay jeexal su ma faat su sama sëriñ sama xarit Cheikh Mouhamed Fall Mori rek du ma kontaan nee naa la lépp ñëpp lu nekku ne nga ca waaye kenn moom maa ngi lay ñaanal Fall Mori dundal loo dund doyul yal na sa jàmm yàgg nee naa la kooku mooy sama lépp bu ma gëstoo gis rek damay am fit yal na sa jàmm yàgg Fall di nuyu xarit yeeg soppeek am di jàmm yi waa 221 caméraman yi maa ngi leen nuyu dañ lay def takarnaase sama mamaa tuuti ama jàmm rek takar